ay murit lañu yoo xam ne sëñ Tuubaa rek yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg ak gëm ak ragal ak sëñ Tuubaa rek lañu ko def. ñu ngi ñu ngi lay ziar bu baax di wax asalaamaaleykum wa di am mbégte njiiti réew mi président Macky Sall tànnuñu pour ñu ñëwal ko ci bés bu màgg bi di bésu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram yàlla bàyyi la fi nga ànd ak wër ci kanamu njaboot gi mbegte bi nag ñaar la parce que ki ñu yónni mooy suñu kilifa waaye daf ma booleek samay kilifa parce que samay sëriñ la ma booleel boole maag samay mag mag magu taalibe e, ne ma demal Touba moo tax ma jógee France démb xëy ñëw fii dagg lépp luñ doon def parce que nag kilifa goo fonk bu la yónnee di yónni la ci ki nga yaakaar da ngay yàkkamtee def liñ ñu la yónni moo tax ñu ànd ceeg gouverneur ak préfet ñi ñu lim fi yëpp pour ñëw jox la yi nga xamante mooy yóbbante yi barkeelu ci màggal gi waaye tàllal la ay loxo parce que waxtu wu ne màggal gi day dajeeg jàngale àdduna te ku ko wër fii di nga xam lan mooy réponse bi même bu dee question parce que réew mi dafa soxla dal réew mi dafa soxla jàmm réew mi dafa soxla nit ñi xam ne réew may ñu ëpp doole ñun ñëpp yàlla nag mooy dénkaane lu nit bari bari daraja te dénku la doo yor doo yor dara yàlla tànn le président Macky Sall jiital ko ci réew mi mu ànd ceeg ay nit lu xuloo bari bari wala lu werante werante bari bari yàlla li mu dogal ànd ci moo gën du tere nag ku ne am say bëgg-bëgg waaye buñ tollee ci réew moo xam ne ndaw ñee ëpp mag ñi képp ku bëgg réew mi jàmm rek nga war a woote parce que ci la jàmm lépp xëj looy wutit ci jàmm nga ko mën a am mu am njëriñ te président Macky Sall mu ngi góor góorlu nag ci li ñu ko jox ku mën lépp nag amul ku yàlla dogal ci yow lépp lu nit ñi xalaat nga def koy it amul waaye yàlla dogal na ci li ñu ko dénk ku ci ne mën naa teg baaraam loxo ci lu muy def loo xamante ne pour yërmande askan lu la pour Sénégal jëm kanam ñuy jublu nag ci lu am solo muy nawet te réew mi moom nawet a ko yor muy sàkku ñaan ci loolu gannaaw bu jàmm amee ci yii ñu jëm muy ay jongante yàlla may ñu ci ndamit ñu di ko sàkku ci bés bu màgg bi jàmm rek am ci ñuy ñaan lii nga xamante mooy nawet mu nekk nawetu jàmm ndox mi bari lool te du yàq bu mu lore di ñaan it nga yàgg fi lool nag te di ko ñaanal sëñ Muntaxa di ko ñaanal sëñ Muntaxa xalif général de Mourides di ko ñaanal it deretu Serigne Touba yëpp yàlla def jàmm ci réew mi eh, loolu ay kaddu la yoo xam ne mënta ñàkk eh, dafa doon taalibe moom boo ko yónnee ci këram wax ja day jafe parce que fii moom ñëpp xam nañ ne yàlla dogal na may taalibe ci kër gi eh, ngeen téye ma it comme doom ba taalibe gi wéyee man xam naa ne fii laa bokk amul lu may xewle ci samay waajur tey jëlul gilleem andi ko ba ba ba jaxaw ñaanal ñu jàppale ñu ba pare nag dere tamit déplacé wu ñëw sëñ Moustapha loolu mënoo mënul defal lu ëpp loolu te loolu nag bu ñu ko defalee it ñaan gu ñu fa ñaanal président Macky Sall ciy ñuy sant bu baax a baax di sant ñi ñu fekk yëpp euh, waa kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké ak sëñ Moustapha ñu ngi leen di sant di leen ziar di ziar nag suñu sëriñ bi nga xamante ne moom daanaka bu ñu la gisul gis ko rek mel na ni gis nañu la e, di ko sant bu baax di sant sëñ Abdou Lahad Ka le maire de Touba di di la ñaanal yàlla kattanal la e, maire yi moom defe naa ne yenu nañ waaye yaa gën a yenu yow ku nekk Touba moom jiite fi defe naa lu mu diis diis feneen fii la gën a diisee waaye lépp dana sorti parce que Serigne Touba lañ koy defal ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp responsable politique yi fi ne ak ñi nga xamante ñëpp dañuy yëngu ci mbiri jamono ji ñu ngi ñaanal ñëpp yàlla aar ñu yàlla teg loxoom ci ñun ba seytaane du dugg suñu biir mbay peex nag lay mujjee il faut ma ñaanal la yow tamit nga yàgg fi loolu te wër parce tamit tiitaru yoon wi nga eh, boo doon wax lu kenn xamul it kenn du ci wax li ñuy wax waaye tey eh, foo jëlee kàddu ku nekk dina sawar a nekk taalibe sëñ Tuubaa te loolu lu ama am solo la kon ñu ngi lay sant bu baax yow tamit la gërëm. loolu lépp nag mi ngi koy def ci tur ki nga xamante ni moo fi nekkal sëriñ bi di Cheikh Mouhamadou Mountakha te moom muy jëwriñam mu di la xamal ne <clears throat> yónneen bi dey neex na lool waaye yow mi mu jaar ci sa loxo mooy li ko ci daqal ndax xam na ne mooy sa wajur mooy sa sëriñ mooy sa lépp te président xam seen diggante moo tax mu ne na nga ñëw tey dikk ci màggal gi delluwaat loolu itam day tegtale yitte ji nga xam ne aajo ji nga xam ne jox na ko bis yi sëñ bi nga xam ne amul lu dul moom <laughs> te bis bi day farata rawatina fii jamono ji toll ndax bu ñu demee ba lu bare bare bare jaxasoo ci àdduna si ñu bari am njaqare ñu bari tiit kon ku mel ne sëñ laat te démb rek ak sëñ laat bi ñu ngi ko doon wax ci exposition ba mhm. muy université boo xam ne dañ ko war a jàngale ci àdduna si kon kooku bisam delloosi jël ko teg ko ci kanam nit ñi ñu xam kii li mu doon doxal li mu doon li mu doon woote ni mu nekkoon model ni mu nekkoon exemple ci ak njullit ci ak taalibe ci bëgg Sëñ Tuubaa ci liggéey ak ki lépp loolu foog naa day farata ndax réew mi ku meloon lañ soxla teg te rek amul lu bis bi kon képp koo xam ne jàppal nga ko bis bi képp koo xam ne fonkal nga ko bis bi rek xamal ne am na lu mu jàpp ci yow am na lu mu namm ci yow te xam na ne président jiitul benn bis te ci bis bii kon boo demee neen ko sant bu baax neen gërëm bu baax a baax boo demee itam na nga dalal xelam mu xam ne ay ñaanam waxtu wu nekk mi ngi ko jëmale ci moom mu sa dakk te gëroon na fi met sax ay jamono waaye waxtu wu ñëwee fi wax naa ko daaw bi ngeen fi ñëwee am na at moo xam ne bi fi daaw Daouda Diallo ñëwee ba mu ñaanee lañ bëggoon fa saasa la ko suñu borom saafara te loolu rek mooy wéy kon nekkoon xam ne réew moom jàmm rek moo fi am ndax fi mu toog jàmm dong lay ñaan jàmm dong lay woote ko moom lay woote kon am xelam dal mi ngi koy sant mi ngi koy mi ngi koy gërëm euh, wax nga léegi sëñ laat mi toog ci diis goo xam ne dëkk bi diis na ko moom dem na xam ne mu ngi koy dénk bu baax ndax li nga wax dëgg la tubaab mooy deuxième ville du Sénégal nekk dëkk boo xam ne jafe-jafe daa bari bëgg-bëgg yi bari kon képp ku yor am na la toggoo te yàlla dafa def ba mu dëkk bépp ci loxoom nu ko sëriñ bi teg mu jël ko tegaar mu jël ko ko ci loxo Abdou Lahad bi kon moom itam mi ngi koy dénk bu baax ndax xam nañ bu ko jàppalee teeñ ko yan bi foog naa dana dana gën a woyof nga xam ne daal sëñ mi ngi lay sant mi ngi sant mboolem njabootam gi fi nekk rawatina rakab yu baax ya toog mm-hmm. mu di sëriñ Cheikh May ak sëriñ Moustapha te sëñ ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Abdou Lahad nekkoon benn daa mel ne ak xilaafa sax ñoom ñaar ñoo ko bokk mm-hmm. ba daan kii dafa dem ren kay dem déwén mm-hmm. lépp loo xam ne moo doon wàllu diine sëñ bi daal jëloon ko teg ko ci loxo sëñ Abdou ñoom ñee nag ñu koy doxal ci goo xam ne anam gu rafet la loolu itam mi ngi leen koy seereel ndax bëgg na réew mépp xam ne noonu la demee ak ñoom waaye itam noonu la demee ak mbooleem njabootu sëñ gépp kenn desul fan yëpp amul kenn koo xam ne des nga ñëpp ay dikk mi sëñ bi daal jaxati mais itam dina moom ñu ngi koy sant bu baax di sant ñëpp rek kon daal wax ji moom foog naa du gudd ndax sëñ moom dane woon bu ngeen dikkee mu recevoir leen fii ci biir waxtaan ak yéen ndax ak njabootam ngeen waaye sax moom du def cérémonie ndax ëpp na loolu weesu na loolu ndax li ko Sëriñ teg ak fi mu toll waaye yéen nag lii dafa mënta ñàkk ma tax may caméra yi dugg fi ndax itam seere la te diggante bu rafetee dañ ko war a seere at nu sëpp jot ci kon daal mi mi ngi kontaan ci yéen mi ngi bëgg ci yéen rawatina yow mi jiite délégation bi nag di nuyu gouverneur di nuy préfet di nuy commissaire ak ambassade itinérant sëñ Isma ak toute la délégation di nuyu aussi honorable député